Sunu People TV, la chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information en temps réel. Euh, def na ma lu ma metti maanaam ci li ngeen ma laaj ngeen ma ndax ndax mës ma def leen loo xam ne metti na ma waaw lu ma metti moom loolu dama ko dama ko dama koo sentir mu mm. doon ay weer mm-hmm. ma avertir ko mm-hmm. mm. voilà ma ngoog ma ne ko moytul am na loo xamante ne euh, yaa ngi koy def ci lu lëndëm mm. man ne ko man ne ko nit nag ma ne ko du dara duma ma de ma ne ko mën koy nit ku nekk man ko di nga xeeb xal bu tuuti mu lakk la waaye nit ku nekk am na lu yàlla def ci moom mhm. mm-hmm. comprendre nga waaw mu ne yor ay rab waaw da nga yor ay rab <laughs> da nga dof ma ne ko mbir mi di ñëw di ñëw di ñëw ma ne ko voilà ñu teg wonaat ma ko mm. wallaahi yàlla ngi may dégg man ñu wanaat ma ko ma ne ko ah alaaji mu ne man ne ko ah defal nànk de am na loo xamante ne yaa ngi koy def ci lu lëndëm mhm. wallaahi ma ne ko ah boobu bu ñëwee lu baax ci yow de lu leer la yow wallaahi uh-huh. boobu man xam naa sant na xam naa loolu dama ko gis parce que lan ma koo teg deel dama ko teg di ma ko won moom xam na moom man am na misaal yu bari yoo xamante ne yaxte nit moom buy wax uh-huh. waaw nit ki buy wax ku nekk rek xam uh-huh. man borom laay seetal du ma seetal doomu aadama yi uh-huh. parce que lu may wax xam naa ko ndax maa ko dund nga waaw mi noonu nit ku nekk rek am na lu yàlla moo lu la mooñaaleel ku nekk xam nga mais am na ne voilà mi ngi noonu mais booy kiy weddi moom na weddi yàlla rek waaye yàlla def ci doomu aadama def na ko doomu aadama ba pare waaw ku xamul na xamul nee na xaj baako mbaw <laughs> waaye wala xam naa waaw kay <laughs> da ngay juum audio yi ko moytuwul wallaahi mais du ma doxaan man télé lay wax mais say da ngay wax wax joo xam dina la yow su doo xam looy lu la wax loolu loolu rek la barki rasulullah mais man du ma doxaan télé lay waxee mais est-ce que est-ce que aussi euh, du du danger aussi nga nga takk koo xamante day gisaane alaaji loolu tamit am na ngay def gis nga boobu ba léegi da ciy wax ah te woyal naa ko sa xiiraa cal cal la cal teewul mu baax waay waay bàyyil fii audio yi waay effacé ko kon audio mooy indi problème bi. waaw ko ba <laughs> oui ma ah kon mu ngi fi ba tey premier mu génne ah, eh, ko dégg nag kon tey da koy effacé à live fii xam nga saint leer nañ ba pare lekk nañ suñu ay ginaar lekk nañ suñu ay miss waaw nan nañ suñu ay affaire yu sedd nan nañu ataaya bu oyof léegi dañ nekk suñu saal ñun toog di waxtaan bu nu kenn déranger génneel audio yi nga effacé ko supprimer audio yi <laughs> dama la ko ñaanal bu suy dañ na uju yi dañ na. ñuul de <laughs> chaque jour mu génne benn. démb ca waa la ma fekk te kat moom laa doon dé defar xom bis te comme ah. damaa fekk ni ma déglu may déglu rek dégg tamit naan ko kañ laa fay ñëw. wallaay seq maam moom dara barke Sëñ Tuuba. ah madame. ajara ajara sama bopp ba di métti léegi maman ñu bari dañu ñëw de pour seetaan ci ndax reetaan léegi dama bëgg après ah balaa émission bi di jeex dinañ ak ci loolu ngeen jàpp ci. waaw mu effacé audio yi waaw ñu xam ne tey effacé na ko à loolu moom da ngeen ñu koy may tey. tey bisu baale la na bi dañ na dañ na boo del baale madam. dañ na dañ na dañ na. nga bu dee ñun da nga koy xuuxal gis nga bu dee ñun. <laughs> Ah. Euh, journal ba ngeen di def. ñëwal waaw alors ñu ñëw ci euh, ci euh, Momar ak euh, Awa Diouf ah uh-huh. yéen itam même question bi mooy ñëwaat mooy. Sunu People TV l'actualité en temps réel l'actualité en temps réel.